ahalan bikum tontu du forox njiiti réew mi Macky Sall tontu na Idrissa Seck ba pare na jàngal tiitre Macky Sall di sàkk ci moom mu wane accord yi mu xaati moom Macky ak réew Mauritanie tey nag Macky nee na ko yow nag maa ngi dool di xam ne ndekete dara xamoo ko ci jëflante bitim réew nu war a demee gis nga su fekkee réew ak réew ñooy xaatim lépp lu ñuy déggoo fa am yoon wu muy jaar dana dem assemblée dana dem fu nekk ñëpp danañ ko gis yow nag ngay yaakaar ne loolu nit mën na ko def ci sec ah yow dara libération ne njiit réew Sall kay dafa rusloo gàccaloo Idrissa Seck vox populi na ko hee daf leen ndànk de idi ma ngay jafandu le quotidien yéen a kaay ne diggante Macky kay ak idi gaz baa ngi ciy ca moytoo teg almet kos ko su boobaa fay tàkk de ndax ku nekk ngi tontu sa morom a yow seetal Macky ko lépp lu ñuy ne Macky daw débat bi waxal ci Ali Kalaji sama laaj bi xam nga mooy lan la xaatim wan ko sénégalais ñu xam ne lii ngeen déggoo ci ni ngeen di jëfandikoo gaz bi pétrole bi loolu la waaye fam nar a jaal ay procédure pour ñu signer ko bagaasam fas yéen a gàddaay dem fekk ci njiit réew Macky Sall allah nijaayu Bamba Fall dafa génn àdduna njiit réew Macky Sall bëggoon faa dem jaale ji ko mu am gan njiit réew Libéria George Mega alalu askan wi source a yéen a kaay moom xëy bàyyi xel doxalinu soxna njiit réew mi Marème Faye Sall bi mu jàpp ne bëri na xew-xew yu ñu koy gis bëri na ay kàddoog dugg-dugg te ñaareel na ci wàllu mbumbaay xumbu teg yu saf yooyu noonu fa koy gis ñaareel Seck moom maître Nafissatou nee na nañu bàyyi politiciens yi nga xam ne fa daanu xamatuñ benn dërëm bëgg bitim réew jox leen xaalis ñuy jaay muus bëgg a nax sénégalais yi la cloche yéene kaay na ko am na sénégalais nag yoo xam ne dañ leen a takkal ay ndombo tànk ci réew mi waaye fa bañ lànk ba tëdd ca naaj wa na duñ jóge ak Yaya Abdou Kane ak Samba Sy Khoudia Mbaye ak Sophie Sidi Le Soleil yéen a kaay di ñu xamal ne George Weah nee na ngir suqali réewam Libéria yaakaar na ci njiit réew Macky Sall mu jàppale ko la mu jàpp moom enquête yéen a kaay mooy ne fika foiru Kaolack ndangaan ba Serigne Mboup réussir na fika ba ayaw seet juróom-ñett fukk ak juróom benn réew ñëw nañ fa téeméer ak juróom fukki junney doomu aadama visité nañ buteur Sénégal ca bitim réew Sadio Mané nar naa roppi Mamadou Niang Ligue des champions nag Real Madrid Paris ginnaaw bu ko Real mbuqee stade yéen kaay moo xëy di laajte na ndax Paris mën naa def remontada maanaam su ko Real fekkee mu mbuqi ko lu ëpp lañ ko mbuqi woon éliminer Real dana ko neex li nar a neex suba ci làmb ji mooy combat classico Ama Baldé Papa Sow les éco yéen kaay ne Assane Ndiaye promoteur ba waa Sen TV ko joxoon pour ñu def en